اكتب لمن أحب وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معاك في حسنك الحصين والشمل اجمعا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فطاه وهابه يا رزاق يا ملكي للفتاه وهب لي وارزقني كن الآن ضيقي أزلا عاجلا بالبشي محمد حتى أقيم لدين الله أركانا يسير جوعي توبا وحمني وقني أدل وراه وتدب لسم مسكانا كالسماء والأراضي والهواء بلا مشارك ليرد مشكونا أجيب صلى بسم الله حسن دي محمد وفاكم دارا سبحان ربك رب العزة عما سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ñi ngi siyaare ñëpp ci weer wu tedd wi te mooy shawaal wala jantal fitra fawqa sawm yàlla ñu ko sama am sarax di di di siyaare ñëpp ci tënk boo ca tuddee Cheikh Mamadou Mountakha yàlla ko yàlla dolli kàttan ak fan te dolli ñu ko dolli ko wér te dolli ñu ko bu bu bu bokk ci tuddee moom nuyu bi nga teg ko ci loxoom kon mel ngi ne ko nuyu nga ñëpp kon nuyu nga ay nattangoom it ci tarixa yëpp muy lu muy lu am solo alxadim yee at yi mu di ko def mooy lu mu tuddee anniversaire lu anniversaire wird wi alxamis min shawal al abrak di ci def ay waxtaan xam naa waxtaan wu tey wi ñoom dañoo bëgg daal waxtaane werdul maxus bi ku koy jëfandikoo shakli muntazim koo jëfandikoo dappetoo ko noonu noonu noonu nan lay mën a développer sa roo waaw xam naa maaxuus bi bi moom loolee ma ca waxoon it lay fetliwaat ba noppi alwirdul xaatim bi nga xam ne moo nekk nii di mbindum sëñ bi nga xam ne moom yi ci des yëpp nag sax amaguñ ci mbindum doxam sëñ bi xam naa yor naa fi fi fii yu bëree bëri mbindum sëñ Modou Abib ak mbindum sëñ Moulay ak mbindum sëñ yu bëree bëri daal yoo xam ne mbindum si ku mel ne si si sëñ Modou Abib danee mi ngi ko toxalee ci sëñ bi waaye boo xoolee boo xoolee sëñ Modou Abib lim toxalee ci sëñ bi amatu tur waaw amut autour waaw kay fii la indi doon rek waaye amut autour loolu loolu mooy xafif bi kon kooku moom kon vérification méthodique buñ ko dee def copie B lañu copie A la ñu soxla waaye copie B bu ñu amul copie A nag jël copie B copie bi bi it moom lu maanaam du la def moom amut autour ma ak ñaan daal ngoo ngoo xam ne mi ngi jóge sëñ bi jóge ci yonent bi alayhi salaam jóge ci yàlla bokkut ak nag nga ne lii mooy al wirdu lazim li tariqa wala lil xaraka al muridiyya kama usamiha ana kon kon su boobaa kon kenn du wax ne xaf yu beeg yooyu yëpp wérdu wi la waaye nag mbindum boroom moom benn rek lañ gis mu yaxal ca nekkat al wirdu te mooy al wirdu haadahul wirdul xaatim al maxuus bi laahi bisul xaatim kooku moom mbindum loxoom la xanaa ba ba gaa yi dàq na ne du mbindum loxoom te dana naqare dàq ndax boobaa it ndax ñi ko jëfandikoo ba xam ca dara ñooñu moom du leen neex a daqal gis naa sëñ boobu doon waxtaan ci mbind yi ni ni ñuy xàmmee mbindum Sëñ Tuubaa waaye boo seetloo aw araf rek day dikk ne araf yi kat dana ñëw ci mbindum Sëñ Tuubaa ay yoon yoon yu yu bokkut kon indibaat amu ci ilmu nag day am indibaat waaw maanaam bu doon dañoo xamoon Sëñ Tuubaa nu mu doon bindee dëgg-dëgg foofu it lu am solo mooy sëñ bi mbindam mi da da koo créé wala da koo fekkoon ci daara sëñ Soy bu daaraam mbindam ma daara ji ñëpp moom la ñu roy ndax boo gisee mbindum sëñ Abdou Lahad Soy bu danga danga naan rek mbindum mbindum sëñ Soy bu la xam nga ko kon sëñ Soy bu mbindam bi da koo créé wala mbindam la waaw xam nga bu bu nee mbindum sëñ Soy bu wala mbindum daay sëñ Soy bu mooy mbind ma not ca daara ja waaye nag mbind mi kan moo ko jëkk a créé sëñ bi. ndax du ne mbind mi boo dee seetlu day mel ne mbindum naaru gànnaar rek muñ wolofal loolu loolu la may jox ci njëlbeen nii rek wóor wóor wóorlu guma ko nag kon léegi ginnaaw Sëñ Tuubaa xamuñu araf wenn araf wu sax kaaf genn kaaf lay bind gisuñu ko kaaf genn noonu biddiwul genn kaaf biddiwul genn noonu ci li ñu gaa yi di gaaral kon loolu kon moom léegi amul intibaat ilmi bu scientifique amul benn norme science nag day am norme waaw nga xam ne mooy tax ñu mën koo jàpp fenn tënk ko fenn kon sëñ boobu xam naa xam naa bu bu defati waxtaan ci loolu nañu wax nag mbind mi sëñ boo ko créé wala da ko fekkoon ca daara wala da ko modifié wala lan loolu loolu mooy départu waxtaan wa nga xam ne mooy tax ñu mën caa jëriñu tigi waaw kon mi kon moom mbindum sëñ bii la ko kon léegi bii mooy bi mu bind werd ja ca des yëpp suñ mudu ab yi bindu ci werd moom waa jëlewul ci sëñ bi ne sëñ bi daa bind werd kay féer la indi moom sëñ Mulaay Buso ak ba ñëwoon ci suñu mbokki bu soog yooyu yëpp amul werd aludul maxus xam nga moom du tur moom kooku moom bu dee tur la turu amatu naasi la waaye du turu xam-xam waaw kon kon aludu xalim yàlla kon mooy werd yi kon ya ca des nag doon ay ahsaab loolu lay feddali nag bu baax a baax a baax xam-xam laa ko teg nag teguma ko ci ay jot ki nangam rek xam-xam laa ko teg saa bu ñu demee ba man ñoo indi leneen waaleykum salaam saa bu ñu demee ba man ñoo indi leneen lu gën a wóor li ma jàpp moom ba li ma jàpp topp loola ndax man dëgg rek laay wër waaye xul xaatoo burhaanakum in kuntum saadiqiin fa lay dox justification méthodique kon koo xam ne nag yow da ngay jëfandikoo alwedul xaatim ci condition yi yii. mooy nga jëlee ko ci koo xam ne dajaa am ndigalul jëfe ga ak joxe ga ak sartam ya mooy lislaam lim la digal kemtulaay kattan nga ne ca lim la tere kemtulaay kattan nga ba ko pantexul sas la ma wax su ma leen tere moom da ngeen da ngeen di daytalu taxaw taxaw bul seq jéego su ma ne ah taxawal tànk ba nga yëkkati woon bul ko teg lu may ca fa nga ko jële woon kooku mooy pantaw waaw léegi nag léegi kon ku def loola danga ci xam dara bu bu wér ci lu leer a leer maa ngi koy gis am sama benn mbokkum tiyaan keroon Ndakaaru ci ci léegi xadar gi ma ma di ko jox wérdu wi maaxuus di ko wax ne wérdu wi de moom seet ko ba xam ma mayis na ci tasarruf mayis na ci soppaxndiku mais na cee ñaan mais na cee ëf mu sedd loolu loolu sax ni am na sax ñu ñuy wax naan taxu ko jóg lu ko tax a jóg lu man di doon dey ku sa bopp metti xam ku mën a ëf ci wedd yi mu sedd boo ko xamee da da nga daw ba rëq di moom yaakaar naa loolu moom yaakaar ne kon xanaa te man mi wax loolu sax naan ëf mu sedd ci wedd wi man dana inam na abdillahi dama ciy ëf mu sedd waaw mbir ma sax day daal gën naa xóot loolu gën naa xóot loolu nga nga nga xam ne kon kuy wedd maxus bii te muy alxaatim bi ndax bale moom alxisbu rafi ala allasi min aniraani xirsun mania mooy bu mu mooy bi nga xam ne moom la sa sa- sañ saaliwu doon doon doon joxe moom euh, te mooy xafif bi rek waaw kay bu bu bu sëñ Abdul Xaadir bi waaw waaw moo nekk ni moom bu bu bu sëñ Abdul Xaadir bi waaw xam nga bii moom bu bu sëñ Abdul Xaadir la moom mooy xafi bi bi ñu xam moom moom la ma sëñ Abdul Xaadir joxoon waaw sëñ Jiri Kanaar la lay wax ne moo moo moo ko bind. kooku kooku moom kooku moom xafi bi ne woon naa moom tudd ko kooku moom kon da da nga koy def rek ngir ngir ngir barkeelu soo ko dee def ngir barkeelu boo xoolee sañ sa sañ mu mulaay sañ mulaay moom bi la bind sañ mulaay moo bind boobu waaw moom it bindu ci wedd moom maanaam bindu ci ne mooy wedd bi xanaa da dane mooy xafif bi waaw waaw bii it mooy mooy waxtaanu sëñ ba su- su- bàyyi bàyyi sëñ jatara dama ko de- def ci arab bàyyi sëñ jatara boo ci demee da boo ci demee moom it dana da da da waaw gëstukat bi gëstukat yi war nañ ko xo- war nañ ko xoolaat waaw bii mooy bii mooy bu bu bu sëñ Mudu Abib bi dégg nga fi mu ne xasa xasa saxewoon naq la naqaltu mi xati seexal kabir waaye mooy bindu ci mbindum sëñ sëñ Mudu Abib mu maam Cerno waaye bindu ci wet waaw kon mooy mu ci waaw nga xam ne moom kon benn daal benn képp daal moo nu wóor ne mooy werde wi mooy bii mooy almaquus bi nga xam ne mooy alxaatim expérimenté googu ma ko def ak ak ñi ma ko jox ñu expérimenté ko ba xam ci ne am na jeexit maanaam daal am na jeexit loolu moom am na njëriñ yaakaar naa lool ñu xam ne daal werde wi kon du ak neen étudiant arab bi mën a jàpp ne rek lii kat moom ay arab la ni nga xamante ne étudiant ara- étudiant arab bi daan la si asaba sa sa salaat salaat salaat yi nag lii moom étudiant si la waxu ko sëñ bi ko wax waaw ñoom moom am na étudiant bu naan sax waaw ndax du ne sëñ bi yent bi da ko jox maanaa yi ba noppi mu tëgg ko ci arab nangam nangam yooyu moom yooyu moom kon nag kuy jëfandikoo weddlu xaatim nii mu ko waxee mën nga cee am connexion waaye nag xam naa eh, waxtaan wi du waxtaanu du du ab conférence waxta- wa- waxtaanu tasawuf la ku koy jéem a dund na- nañ koy dunde la ñuy wax Eh, sëñ Saaliw silsilam bii moom silsila bi ba ma koy jox moo kam ma ko doon joxe moom kooka moom da ko waxoon wa- wa- wax ju am solo ne ko dama bëgg di ci tërbiye wu di ci tërbiyaa seetlu naa ne daal joxin woowu damaa yaakaar ne mooy jeexit ji dëgg nga ne ko ndigal li am na ku ñuy wax Modou Diop day wax ne daa seetlu ne ñi nga xam ne jox naa leen ko ni leen jox naa leen ko ngeen man koo ngeen mën cee soppaxndikoo ngeen mën koo jëfandikoo ñooñu gis gis nañ ne ñoo ci gën a ma mën a soppaxndikoo ku ñuy wax Maguette Kandji Oustaz Maguette Kandji wax na ci lu lu lu am solo ab école boo xam ne benn xale bu bu jinne solo waaw nee na mu jàng moom maaxuus bi ba ca min ma kaa idi jamihal aada mu daal di koy mu daal di koy baamu wutal xadal wirda barak sanasidan an jami aday ko sanamaane an jami mufasidi nee na mu baamu ko ñetti yoon la wax xamu juróom ñaar ëpp ko xale bi xale bi daal di ximmi di ko jinne ja dañ loolu de xanaa kon moom da da dana dana wane ne kon tarjumaan ji am am na ñoo xam ne dañ daan tarjumaan ji motu cee boole kon xanaa kon tar- tar- tarjumaan ji kon am na kon efficacité boobu kon ndax baat yi bu jógee ci yonent bi alayhi salaam mu jóge ci yàlla ku ne xam ne ne ay code la baat yi dañ dañ ko côté ci ay leer ak i secret yoo xam ne yow mi koy jëfandikoo yaa koy mën a xam étudiant arabe bi moom day day day jàpp ne kat alayhi salaatu wa salaam moom moom mooy lan nga ne ko xanaa mooy laaj mooy li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa jaayoon boromam ci ay mu mu baaxaat ne du ko defati yàlla wooteelal ko ko ko ay ay waxaadali ab daala jawkaana xaqan yàlla wooteel ko yeneen kon moom werdul maaxuus bi képp koo xam ne dangaa bëgg a tërbiya wu jëm ci yàlla ñu jox la ko joxuk tërbiya bu dul loolu waa ji mën na la koo jox joxu rek barkeeloo werd noonu di ko werd waaye nag yow yëg-yëg bii nga xam ne moom lay wax moom maa ngi ko seetlu ci ñi nga xam ne silsila Sëriñ Saaliw bi la ba noppi mooy bi ma jox ma di leen ko jox ci ne da ngay tërbiyewu da nga ci yéene tërbiyewu rek soo ko defee connexion bi ci wérdu bi nga mën ca jot loolu moom loolu moom tajriba la an tajriba sin la gars yi ma ko jox ñëpp ñoom ñi ngi sant ñoom sant loolu kon moom ku bëgg a jëriñoo wérdu bi kon nii ma ko waxee am ci connexion man cee def dara day aaja kon nga jëlee ko kon jëmbul ci ko amee nii ma ko waxe ku ci am ndigalul is na xaas ci man cee soppax ndiku ku la ko mën a jox kon day su su boobaa werdu wi dana la yéegi werdu wi dana la la may dara misaal sama benn xale bu bu ma ko joxoon mu ne daa gént gis Cheikh Bukhari Jelaani di leen jiite ak julli sàppe si nee na bi ñu sëlmalee ki daan rek moom ne ko kee day mooy Cheikh Bukhari Jelaani werdam wi ci la wali yu bari jaar ba àgg ci yàlla nee na Cheikh Bukhari Jelaani geesu ne ko xam nga kee ca ca mbooloo ma nee na mu xool mu muy muy muy muy sëñ Bamba mu ne ko kee day werdam wi moo gën werdi yëpp mu ne ah waa ji de kon moom kon kon yëf yi leer na yaakaar naa ci yu bëree bëri am na sama xale boo xam ne Saliou Sylla la tudd baayam bu ndaw di di di ab tiyaan bu sell moo ko doon tërbiyee ci tërbiyee ci yoonu yàlla nee na mu ñëw fi nag mu ñëw fi man ci paydu akabc misane ci ci patar ma jox ko maaxuus mu dem de def ko ab diir waa xamul ay ay ay ay bis la waxte xuma nee na mu nee na bàyyam ba woolu ko ne ko looy def fan yi mu ne ko damay wedda maaxuus bàyyi ba daal koy wàcce ne ko yow li nga yor moo gën li fi nekk lépp ko ko kon ma ma ne ah bàyyam boobu de moom mbër la jàmbar la boo seetloo bàyyam bi xam na ne waa ji traitement yi bi mu ko defal am na benn traitement bu ci dugg xam na ko ñaareel bi xam na ne médicament yooyu mu jëfandikoo moo gën médicament yi mu ko joxoon mu nangu ko sell sell wax ko ko kon yaakaar naa kon moom kon ku ci am ndigal loolu daal laa jàpp ne kooku daal moom mi mi mi ngi ciy jariñu bu dee nag nag waa ci xam ne moom day wedd noonu rek mën naa am muy wedd noonu rek waaw di wedd noonu jublu ci ab yool waaye ab yool bi ab yool baax na waaye nag kii buum la goo xam ne dalay jokkale ak Sëñ Tuubaa dala jokkale ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ataalluqu yaxsulu bi axsil werdin sawa an saaxabal xidmata aw lam yusaaxibha kon werd wi képp koo ko jëfandikoo te mooy alxaatim bi di moytu tere kem tala kàttan jëfandikoo kem tala kàttan na la leer ne yow soo faatu woon malaaka yi buñ détecté xam ne murit nga xam ne am nga silsila ba ci su borom boo xam ne dogut léegi lu silsila bi lu mu jëriñ mooy kat leer yi jóge ci yàlla yàlla di di ko jagleel ko sëñ Tuubaa jaarale ko ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam yow yow am nga liiñ boobu am nga ko kon yow mën nga caa am am sa sa sa détecteur bi wala sa sa émetteur bi mën naa capturer li li nekk ci message yi nekk ci ligne bi loo loolu lay jëriñ moo tax it nag kon faaw nga am faaw nga am sil sila boo xam ne mu tasi la xayru mun xatian dox ba ci sa- ba ci Sëñ Tuubaa waaw loolu moom faw faw mu mu am soo ko dee jëfandikoo moom xaatim bi te te gisoo ci dara xam ne la kon sa silsila bi kon dafa dafa am fu mu doge te te yëgoo ko bu dee nag bu- bu dee nag euh, kii bi ñu ko waxaati xafif beeg yooyu ab xale mas na maa ku ñëwoon di di jël si xaatim bi nee na ma mu ne ma euh, def na ko mm, ba gént dugg ci bàmmeel gis Sëñ Tuubaa xet xet xet yi mel noonu ma ma ne ko waaw noonu la kay ndax wali duxulil jannati la wax azamu shafia moom xafi bi moom ku bëgg a dem àjjana kott rek dong yam ci ku bëgg a am connexion ci ci yàlla nag demal ci xaatim kon kon daal mel na ni kon alwirdul xaatim bi kon moom ku ci sax doon dara ku ci sax doon dara loolu moom amul sax lu ñuy xeliyaar moom ñi ko jëfandikoo xam nañ ko koy jëfandikoo euh, xaatim bi da nga xam dara amaa nag xa- xafiif bi moom borom li nga ko wax leer na moom annoncé na ko ba noppi moom mooy xersun mania la kaara ngir jox ne ku ci nekk seytaane du la mënal dara ba noppi nag du dugg àjjana dana la yomboo ku- ku bëgg nag Sëñ Tuubaa ba mu wootee noonu ne waxoon ne kat ku ànd ak man tum naa ñi ko doon ñi ko ñi ko ñi ko Sëñ Basiiru nee na ñu yónnee woon ci moom di di ko wax ne ko te te ngaa ñaan intervention ci tubaab bi ndax ceddo yi da dañoo sonal lool sëñ bi leen ku ànd ak man ngir àdduna ànduma moom ak moom ku ànd ak man ngir àllaxira ànduma ak moom ku ànd ak man ngir ngir- ngir yàlla bisimilah kon day mel ne kon xaatim bi bi moom doo ci digg doo ci digg njariñul àdduna na li maanaa sëñ bi wax ko ci xanaa yow kay yaay dox yow ba ba xam ko ci yow yaay dox yow ba xam ci nekkat paaka ñaari boor la waaye nag bu dee nag eh, xafi bi bi moom borom moo annoncé nekkat lii lay jëriñ jombut it nag ku ku ku ku ko expérimenté eh, dañ ci dañ dañ ci gis leneen incha allah man fas naa ko yéene jëfandikoo waaw xafi bi ndax Cheikh Abdou Khadir moom moo ma ko joxoon kon moom moom it sa sa ko yéene jë jëfandikoo waaye xaatim bi moom daal xam naa euh, mos naa ko daal mu mu- mu saf lu dàq suukar dàq lem moo tax ko- kon mën na ci kon de dafa dafa mel ne kon tënk baa ngoo kon ku bëgg a àgg ci yàlla ku bëgg a tërbiwu tërbi ruuxiya jëlal al al alwirdul xaatim te mu am silsila mu tasila xayru mun xatia soo ko defee da nga am wusul ak wisaal da nga mën a tasarruf ci kawnu bi loolu lépp ci njariñul awraad yi su su su suufyank yi la fu fuqaha yi ñooy jël masuraat yi di di di ko wér te duñ ci gis dara ñoom waaw ndax ñoom jë- jëluñu ko ngir tëbb waaye dañ koo jël rek ngir ab yool yool ak nag ak leer bu bokkuñu bokkuñu bokkuñu am ab yool moom day mel ne bis penc lay ñëw wala mu ñëw ci nangam rek waaye rek bu dee leer yoom da nga am connexion mën a tasaruf ci kaw nu bëgg yooyu waaw te loolu loolu it nag amal na njëriñ amal na njëriñ ñi ko soxla maanaam ku sa bopp di metti eh, am eh, dend ak koo xam ne ne day du xaati mu ëppal la Eh, maa ngi koy waxtaanee ke- keroog fii diw sàngam loo ak diw sàngam nangam di wax si diw sàngam moom loo de man de damaa bëggoon ci nga xaatim bi nga jël ko ndax daal am na njëriñ daal kii euh, sëñ bo diw sàngam moo ko joxoon mu ne ko waaw ma- ma- ma- ne ne- ne man mii day am na sama mbokk moo xam ne ne daa wér di ñëw xama ko booba day metti nee na ma wax ma ko nee na ma nee nee na ma ne naa seet suñu soju kokki di wax daal di koy defal ko mu daal di sedd loolu yaakaar naa am am na njëriñ moom waaw xam naa ku ne amul njëriñ nag yàlla dama yaakaar ne sa sa sa bopp booba daa méttiwul bu sa bopp méttee da nga gisoon ku mel noonu yaakaar naa da nga sant lool kon daal kon ci tënk xam naa waxi suufenke la moo tax defuma am muhaadara nangam kon mi ko kon wedd waa ngoog alwirdul xaatim mooy alwirdul laasim fi tariqa wala fi lxaraka almuridiya xasaba samay gëstu sa samay nangam ak sama expérimentation ci yëf yi kon ñi ngi saari ñëpp kon di ñaan ñu jëfandikoo ko jëfandikoo ko bu bu bu kenn rus bañ koo jë bañ koo jël waaw ku koy jël moom par force na nga ci nga wàcc moom bu bu fekkoon sa baay amu ko woon ngay ab sëriñ sa baay amu ko woon da da ngay génn kër ga wuti ko waaw waaw waaw waaw bu bu dee nekku ci aada bu dee nekk ci aada nag moom béy ba nga toog toog toog sa kër baay foofu it lu am solo am na ci ñenn ñoo xam ne ci mag ñi sëñ Tuubaa joxoon na leen ay bagages bagages yi sax jot naa jo daa ne kon sëñ bi moom joxoo leen wenn weer di maaxuus waaye dinañ joxoon secret sàngam loolu jot naa ci kon kon ñooñu kon jëmbul ñoom mën nañoo yeyom ci booba bu bu ma doon ñooma nag man mi maa ngi jëfandikoo si lenn ci secret yooyu ba noppi te maa ngay jëfandikoo maaxuus kon man da kon kon ginnaaw lu lu baax du doy boole woon seen secret yi maam yooyu si waa joxoon ak moom maaxus bi jàpp naa ne mooy gën a baax ndax day day gën rek nuurun ala nuur lay doon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh اكتب لمن أحد وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا به ثوابا لا يريم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحصين والشمل اجمعا